ah jërë ngeen jëf ñu ngi fi nga xamante ne tey naa la ñetti mbaar ñetti mbaar nag boo waxee mu ngi dëkk bokk si nga xamante ne mooy département bi nga xamante ne mooy Thiaroye mais Guédiawaye tamit sekk na ko ñëw si li xamante ne mooy immigration benn salle d'administration boo xamante ne ah, euh, defal li nga xamante mooy ndaw ñi ñu taxaw kenn ko xamante ne mooy Baye Médiaye Baye Médiaye xam na bu Balla Gaye ngi ne tey Baye Médiaye bu Guédiawaye ñu ngi lay nuyu waaw jàmbaar maa ngi lay fay ginnaaw ban sante yàlla julli si yonent bi di sant suñuy ñaari waajur di gërëm waa ñetti mbaar parce que man fii laa juddoo fi laa yoroo suñ kër a nii si ginnaaw waaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax di gërëm sama grand Kals waaw. liggéey bi nga xamante ne tey ki nga xamante ne mooy Cheikh Dieng ah di monsieur le maire defal leen ko fii yen ñi nga xamante ne en tant que wala tamit ñi nga xamante ne yeneen xale yi yëngu ci imbri gymnastique yeneen sport yi tey ban gis-gis ngeen ci am. non Cheikh Dieng ñun xalaatul woon ne sax lii dina am fii barke Alxuraanu Karim duñ def nag lu dul di ko ñaanal. parce que lu mu def nii pour jeunesse su ñetti mbaar guy faatu may ga gox bi la ko defal fu mu toll nii nag ñu dañ koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm di ko fay. parce que lii yombul jël def investir sonn si nii defaral ñu loo xamante nii salle de la ak yeneen ak yeneen yoo xamante nii yu mucc apib la waaw ñu ngi koy sant bu baax a baax lépp luñ koy ñaanal gën koo ñaanal yàlla suñu borom mu jël maire bi si kàttanu Seydina Mohamed. waaw tey lan ngay li nga xamante ne tey mooy ca mbokku mbër yi mbokku lutteurs yi nga ko saaku di dem yeneen gox gox yi di fa entraînement mais jege leen tout près léegi te bokk waaw loolu dëgg la parce que boo xoolee Baye Mandiaye mi ngi dëkk fii Baye Mandiaye numéro 2 mi ngi dëkk si ginnaaw fii ak yeneen mbër yoo xamante ni ay booy lan mais wax dëgg yàlla ñoom it ñu ngi bay seen waar parce que lii ñun lañ ko defal ñun askan bi lañ ko defal barki Serigne Touba mais lépp rek suñu xol moo sedd parce que lu toll ni saalu musculation nga def ko fi def ay gym ay affaires yooyu armation ay pétante yooyu noonu yombul mais moom dañ ko siy sant bu baax a baax ñun moom gis nañ suñu bopp bu baax a baax si kàttanu yàlla waaw te na nga gisee li nga xamante ne tey mooy xale ne si banlieue bi mbëri xale yi xam ñu ngi si làmb dañ am problème fu ñuy fu ñuy te lan nga leen gën a ñaaxaatee ñoom waaw ma leen di ñaax rek ngaa waaw ñu ñëw jàppale grand bi parce que li yombul muy xale ba mag maa ngi ñaan yàlla xam nga ñu ñëw fii seen sàlla xam nga fu ñuy demee yeneen gox di wàlliyaani kon tey ji defal nañ ñu ko fii ñetti mbaar fii kon ñun duñ def lu dul ñaax booyu ndaw yi ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim yàlla di leen defal ay ndami ndam te mu jig leen si kàttanu yàlla. topp topp ci war parce que matériel bu toll ni bi ñu yëkkatee def ko fii yëkkatee lu toll ni dara ko fii def ban toppatoo ngeen ci war a def yéen en parce que ñëpp dafa am benn bët bi ñu xoolee mbëri ah, ay dof lañ dañoo defal daal loolu defal ñu yàq te lan ngeen wax tey ci ñooñu. waaw fii moom mën naa wax ne ay noobu ñoo fi dëkk nga dugg fi ak discipline xam nga ak fair play bañ a sol yooyu yëre yoo xamante ni yu débordé wala dara xam nga sol say équipement yu rafet sol say dal yu rafet yor sa sarbet yor sa ndox xam nga mais yooyu yëpp tamit dañuy ñaan yàlla ñu waxtaan ak ñoom ñu ñu jéem a waaw liggéey suñu ñetti mbaar quoi waaw. dañu seen xale yu bëri xale bu ci bëgg am noo toll wala fa am nga am noo mel rek sa xalaat ak sa objectif yëpp day nekk. voyage yi ñii ñu dem Europe mhm. pour liggéey fa ñii ne Gambie gën a dal suñu xel léeg leen lan saali ñoo saali ne fa ñoo gën a baax saali ne fii mhm. wala lan la wala ga xale yi wala gars yeneen entraîné ñoo xamul euh, ci système bi nga xamante pour xale yi war na ci mën a am bi ñu war a am waaw système bi moom yomb na man mii ma lay wax ni Italie fee damay def saalu musculation entraîné naa fa xam naa lu fa xew lenn daal mooy distance bi bu dee matériel ñoom ëppale wuñ ñu ko mais récupération bi moo xaw a kii tuuti quoi parce que foofu boo jugee entraînement da nga ñëw tëdd kenn du la déranger xam nga mais bu fekkee fii la nag doo mën a am récupération boo xamante ni bu mooy bu war la mais fee moom da ngay nelaw da ngay récupérer ñuy xool sa yaram affaire yooyu loolu dong moo ci kii mais weñ ñu nekk fële moom moo nekk fii waaw. lan ngay wax hmm. yi. Hmm. le 23 dimanche lañ jëm. surtout maa mbëri. mbëri dañuy ñu jël mbëri di mm-hmm. mm-hmm. xeex ñu def wax ci côté lamb mm-hmm. lan ngay wax tey ci loolu. waaw ma leen di wax rek parce que ñoom ñu dal xam nga parce que affaire yi moom metti na dafay metti si ñoom parce que ay mbëri ndaw lañ duñ dem fenn di ñaani wala dala tàllal seen loxo boo gisee ñu def ko pour la ñuy am lu ñuy dundee wala ñu am lu ñuy lekk mais maa ngi leen di ñaan ngir yàlla affaire ñu def ko si fair play xam nga parce que àdduna amul solo fii lépp loo fi gis day jeex mën ngaa gaañ sa moroomu mbër bu boobaa tamit da nga da ngay rus mais dañuy ñaan yàlla xam nga ñu def ñu ànd ak ñoom si fair play yaa ngi dégg di sant yàlla bu baax a baax dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn seek alhamdulilahi rabbil alamin ñu ñaanal suñu maire nag mu jël ndam li si kàttanu yàlla Cheikh Dieng bu sooba yàlla dina ko jël waaw kii nag mooy suñu grand calze moom heure heure bu ma amee komba waaw moom sama kilifa la sama lépp la su ma amee sama combat day ñëw xam nga def si alalam sonn si man kon tey ji nii awma fayam depuis xale ba tey la ma commencé tette ba nu may demee mag nii mooy grand Kals moom moo nekk ak maire léegi moom da lay expliquer nu affaire bi demee yow nga mën a comprendre ko waaw. guy gi ñu ngi lay nuyu di la siyaare maa ngi delloo siyaar maa ngi leen fay bu baax a baax baax. tey ñu jës li nga xamante ne mooy docteur Cheikh Dieng. monsieur le maire leen yéen ñi nga xamante ne tey yéenay mbër yi lu mel nii pour li nga xamante ne seen entraînement gën a ngeen doon dem si yeneen gox yeeg yeneen koñ yi indi leen ko fii nga xamante ne mooy seen gox tey ba lan ngeen ciy yëg. waaw donc contentement rek. billaay parce que yaakaar naa tamit bu ñu daan jugee def ay musculation feneen ak feneen xam nga def fekk suñu adversaire gënaluñu xam mu nekk suñu gox ñu yow di gis bi entraîné di duy tànk duy yaram ba mu fees moo ñu gënal fuuf ñu dem di ñu jàmbur fekk suñu adversaire di entraîné ak moom loolu tamit neexul quoi loolu di dafa neex lii moo daaw loo gis si àdduna di suñu la def la ko doomu aadama ñun lu def la ko barke alxuraan di ko sant di ko ñaan bu baax a baax a baax a baax di ko wane moom ba dem sa côté musculation bi laa walaay wa taalaay xam ni xam ci ko moo gën grand bu benn la barke alxuraanu karim lii mu gën daal ci li mu def lii moo gën rajo bi mu def da nga am combat am bis mu taxawal mm. taxawaay bu jéggi dayoo yëngatu lu bari may la comme ne yaakaar naa bu la joxee lii pour nga gën a yokk doole kooku noonu kooku am na lu may laaj am na bi ne bu lay laaj quoi te danga ko war a maral te ñun ay jeunes lañ ñu mënuñu dem ay kàccee jàmbur di entraîné bu fekk adversaire xam nga ni nga bëgg entraîné sax doo ko entraîné neexul ngay pré combat de adversaire fi ngeen entraîné neexul benn salle bari bari na bi quoi merci beaucoup mais tamit xam nga bu nekkee suñu gox ñu yeewoo yaakaar naa tamit xam nga loolu loolu suñu farda dañu ciy kontaan bu baax a baax a baax. dëgg la noonu la demee. nga jóge du ma la bàyyi nag fi ma laajee tuuti nga jóge ci combat jóge ci défaite lan la ñàkkoon lii moo tax nga jóge ci défaite wala la. waaw sant yàlla xam nga défaite moom yaakaar naa jomul kenn xam nga lamb lamb la rek xëy na loolu daj ma daanee loolu war na may féliciter sama adversaire di ko ñaanal jàmm di ko wax ne ko Arama ndam la yàlla na ko jig ci doole Serigne Saliou li ma lay wax lu nekk ci man la lu néew ci man du ma ko wax barke Seydina Mouhamed dama ko ñaanal yàlla na ko ndam jik ci doole Serigne Saliou. a jóg waaw am na moom ndam lu ko neex la wax moom ndam ndax lu neex rek mais l'essentiel ba wax benn wax ba nga ko garab ci kaw lay fekkante te mën a mën a goo gis kam doon moom du ko wax. waaw am jafe-jafe yoo ci dund. waaw jafe-jafe mënuñu cee ñàkk mais ndaw lañ ma 90 jours laa jull 5 juillet ma fi amee bay ñàkk maa ngi doon toog sa mbundu àdduna barke alxuraanu kan mi sant ko bu baax a baax a baax a baax a baax waaye see jàkkaarloo ma ne sant bu wér. lan nga jàpp moo daan ci combat boobu. waaw sant yàlla rek xam nga lam instant yii wax boo waxee ñu da nga saldeel mais dama koy félicité di ko ñaanal ndam li yàlla na ko ay doomu jàmbur daan daan ñu toog di ko nangu mais dama nga xam ne ko champion la mais daan na champion champion la mais daan na champion te moom bu tëddee bu tëddee dina xam ne lamb ji dañ ne coono yu métti barke Serigne Saliou di suñu kanam ñu ngi may contacter ay combat barke Serigne Saliou ma yaakaar mais lu ne la rek bis lay xaar loolu jël bàcc loxo adversaire yi xam nga loxo staff bi ñu gérer loolu noonu parce que man maa ngi koo xamante ni si wax dëgg yàlla man du ma seetloo doofu jàmbur ndamu jàmm ndam dama ko ñaanal mu ndam ni jikko xam a waaw abaar loolu moom dëgg yàlla man sant tamit xam nga waa Texas ko rek waaw. en tant que leader kaaraange gi lan ngeen di wax yéen pour li nga xamante ne tey ngeen respecté ko xam na xam na ko téye xam ne yéen a am benn jafe-jafe. waaw suñu mbokku mbëri ma leen wax rek ne leen gars yi ñu bàyyi joxe xam ne kaan yi ñu ko def du ñun seen adversaire bu ñu mënul daaw ci ñun la. boo bëggee dégg dëgg ma fii xoolal waaw géej gaa ngi ne jege na musculation baa ngi jege na xam nga adversaire bu ñu mënul daaw ci ñun di wax mbëri dañ préparé xam ne ñu am salle de musculation lañ seetee defal ngeen pare. tànk yi dina fees loxo yi dina fees te ku ci dëkk sa doom dóor nga daanu. jërëjëf amul leneen kontaan naa. jaamu ci ah, nekk mbaa yaa ngi si jàmm baax waaw si yaa ngi jàmm baax baax. seen liggéey bi nga xamante ne tey docteur Cheikh Dieng monsieur defal na leen ko indi leen li nga xamante ne mooy salle de musculation di ngeen doon wut ci yeneen gox yi wala ngeen da dem si yeneen dëkk yi tamit di ko fa jébaane ji wala di ko waliyaane ji indi na ko ba seen biir koñ tey ban taxawaay ngeen ci am ak ban yëg ngeen ci tamit xanaa kontaan ak xol bu sedd guy mm. man da suma àndoon ak normalement mu andi ma dem entraînement ba jàmm gën laa dem salle mu andi ma ko fii pere ngay entraînement te doo fay loolu sant yàlla ak kontaan ak bég ne nag damay am doole fa foos ndax salle am na sama koñ docteur Sédié c'est le meilleur ko yàlla fay ci liggéey kan la jàmbaar la yëpp ay mbëreeg sport yeeg ñiy karatéka ak ndax lii du salle ah. am na salle gym am na taekwondo am waaw li muy boole fi daa bëri kontaan si moom kese ak mbégte bu bëri parce que yonent bi di wax nag waa Thiaré yëpp nañ jàppale ko mu gañe mairie commune bi ak mairie ville bi waaw ndax liggéeykat la ndaanaan la waaw loolu la am loolu wax waa ak dégg sa mbokku mbër yi nga xam ne ñu ngi fii caaro yi fii dëkk bi ci milieu bi fii lan nga leen wax tey ak écurie yu fi nekk tamit lan nga leen wax tey xam laa écurie yi nañ dajaloo ñëw seet si docteur Cheikh Dieng man mi mbër laa xam dañ may daw nag wax dëgg yàlla mais waaw yoo xam nga dañ may daw gars yi la du leen sama avancé non xam nga loolu baax dama ne ku nekk fii mbër nekk jëlee caare kaw la nga ñëw si docteur Sénégal mu jàppale la ñun ñii ba mu falo 2014 ba léegi dañoo defar contrat ñuy fayeeku di dem entraînement su amee su amee combat mu jox ñu xaalis yu ay tiggee waaw moo tax mbëri duñ daw docteur Sénégal moo tax mbëri duñ daw naan gars am jàppale da mbër yëpp ñëw fii docteur Sénégal jàppale c'est le meilleur moo mun sax Macky Sall moo ko xam-xam fuuf moo ko pay diplôme na ko gars yi jàppale taxawu ko mu jël mairie commune bi ak mairie ville sama mbokk mbëri da laa woon ñoo jàpp si balaa moo ñu voilà toogaay bi yàgg lan la looy xaar dafa mel ni Sall ñëw na doole day gën a bëri mbëri am nañ problème barke yoon bi xam nga gi damaa dégg mu ne kañ la judd dëgg la xale bu ndaw la man la 10 10e mois 90 laa judd su ma entraînement yi bu diis ndox mu diis laay naan ndax damaa bëgg diis te diis sama pare xam ko daan ay soq ay zambala daan grand combat yàggul dara booy siin noir jox ko sama avance bu dem ba si biir delloo ko leen laay wax di man maa ngi ñoom ñoo may daw barki yonent bi mbëri ku si ñëw ku si laal da lay daan dañ maa ragal mbëri daa dafa bëri ay tapet lamb ji affaire ay tapet la ak affaire mootu te ñun doxawuñu noonu doxuñu noonu waaw Pam Ndoy moom di wax noonu maa ko dégg temps yi muy daan sama dëkkandoo yi waa jàmm na ma laal na ma laal waaw jàmm gën ak caare di benn de ñoom samay dëkkandoo lañ samay sitaak nii xeeru ngor tam su ñëwee ñu bëre mi daan ba kii Youssou Ndour waaw merci jërëjëf bëri na de. mooy man xoolal 1000 francs moo ko fay bëre ndax am naa docteur Seye am naa Ana Coulibaly am naa Mati Diouf Seydi Assane am naa Ibrahima Sané bu mairie ba ak sama gars yëpp waa mairie bi yëpp maa ngi sant gërëm ñooñu ñëpp am naa leen. suñ ñëwee ku suñu ma doq la duma la daan la man maa ngi si ginnaaw CG CG moo ñuy jàppale c'est le meilleur zone bleue ak ay yi ay see zone cinq yëpp maa ngi di muy sant yàlla ziade mesere kaani gi daaru salaam ndox mi sama dëkkandoo yi penc farba olympique cosaan ku lim jum kaani gi ñoom ñëpp samay waay lañ wër na yàlla barke yoon bi aw ma seen fay yaa ma dégg ak olympique sama dëkkandoo yi waaw ku lim juum dañ maa la jox combat gars yi ñu may daw man lan la man lan la la ma ko daal man tollu ma ne lu tax ñu may daw. ngay dóor da ngaa mën a ma dóor booy musu gu ma leen di dama di jàpp di leen daan xanaa mooy day wax mais maa raw Balla Gaye ay waxtu man ay seconde laa lay defal man waaw jaajëf bëgg naa si trop jaajëf. Digo ñu ngi leen. ñu ngi leen ziar grand. tey lu am solo. si jël li jël li nga xamante Tigo nuyu naa la. delloo naa la ziar. tey li nga xamante ne tey mooy docteur Cheikh Dieng defal leen li nga xamante ne mooy salle de musculation tey ban kontaan ngeen ci am sant yàlla ak ci yonent bi sant suñu ñaari waajur. waaw di wax ne grand Cheikh Dieng grand bu baax la bu ñu ko xamee grâce à musique quoi musique moo tax ñu xam ko quoi mais lii nii defalu ko kenn defalu ko ma sàmba defalu ko ma demba quoi nu ko defal mooy ñun lutteurs yi ñu ñëw ci gën a gagné xam ne ñun ñooy jug fajar entraîné ngoon gi ñëwaat entraînement kon damaa yaakaar ne mbër mu dëkk fii ci gox mi boo mu doole rek yow la yow la neex waaw parce que lii maye doole mu ngi fi si Ndiaye defal nañu en waaw tey ak yéen la ñuy waaw xam ne dañ ko war a sàmm rek xam ne du alalu kenn suñu alal la bu ñu ko yàqee suñ alal lañ yàq bu ñu ko jàppee suñu alal lañ jàpp parce que dañ daan jógee fii dem ba Pikine salle musculation wala dem ba jàmm wala ba Kër ma Massar léegi nag dangay ngay bërëngu rek dugg dugg ci biir saal bi kon loolu cant ak ngërëm moo moo koy moo koy war nañ ko sàmm daal aar ko xam na bu yàqoo ñun la yàqul bu bu guddee fan ñu ñun la ñun la gudd fan. waaw bu baax a baax. bu baax a baax. waaw mbër mu amul doole ci yow la yow la neex. na gaa yi pare. xam na dañoo war a ñëw bëre si. na gaa yi ñëw jël sama avance. caatu laa bëgg. ak sita bu ngor. man dama lay wax ñi ma bëgg. laa bëgg. sita foora. waaw. caatu foora waaw. allahumma amiin bëgg naa loolu. bëgg naa loolu jaajëf waaw. Siteu ñu ngi lay nuyu. waaw ah, ñu ngi leen di fay di leen siyaar quoi di siyaar ñëpp ak ñu ne fii quoi su mel ne musique sunu grand moo tax ñu xam sa waay quoi moo am borom jantal grand la quoi waaw gisoo. da ngeen ci entraîné. si yéen ñu bëri tey lan ngeen lii rek di ko sant quoi lii moom bu rafet la quoi ñu doon dem bu sori ñu doon bu sori nag ñu entraîné ji quoi mu yombalal ñu quoi xam ne danga ngay génne sa kër daanaka yegg si quoi mais xam naa ne mbëri moom du man ka sax mais xam naa ne ñu bëri daal si kontaan. daa si kontaan lool ndax lii moom lu rafet la ko waaw xam naa lu bu am amul doole daal si ñun la quoi bu amul doole mbër mu mbër mu ci amul doole ci yow la li nga doon rooti di dox ay kilomètres wala di jël oto léegi da ngay dox même pas deux mille nga dugg waaw kon boo amul doole ci yow la billaahi si te lan la lay xaar ba léegi combat yi bari na mais ba léegi xale yi mën ñu fex ba ñëw waaw gisoo saa yi ne xam nga fan yii ba mu bëree mois novembre lañ mujjee bëree mais boo bëlee ñu ñuy wax quoi tey suba tey suba quoi mais xëy na ama laama moo amul lu nooy ama suñoo man du ma laaj kenn su ma sama ménagère jox rek ma war a bëreeg moom dinaa bëreeg moom quoi sa xel ku ci nekk sa xol fi mu ne am ku ci nekk non sama xel fi ma li ma la wax rek du ma laaj kenn mais gars yi xam na Siteu bu waalo xam na Siteu bu waalo baax wa non nan ma jox booy yi booy yi fi mën yi rek dafa bëre booy yoo xam ne ay ndellu man la dañuy wax rek mais du sax waaw waaw albarka Jacob yëpp ku si ñëw baax na samay naatu angaloon waaw ku ma jox ma duma la daan la man samay combat du yàgg ay seconde la wallaahi nasi waaw mel na combat yàggul waaw waaw gisoo waaw si tëbu waalo rek yaa ma xam Sénégal jëm sa kanam leen di siyaar am contentement si yéen bu baax wasaare lamb am na sama combat yoo xam sax yéen a ko filmé waaw yaa yaa ngeen may topp waaw yaa ngi naan may top si dama waalo waaw yàlla defal jàmm rek affaire yi jëm ca kaw ca kanam quoi.